salaamaaleykum wa Medina, salaamaaleykum wa dakaru may nuyu waa Sénégal yëpp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaam bi day am bëgg-bëggam borom bi dogal xam ngeen ni tay si dafa am suñu kilifa gu mag bu wàññeeku ñu si profito di jaale njabootu Chérif Abdourahmane Tilala ñoom ñëpp di ko jaale juditu Sénégal yëpp xam ngeen ni dañuy fas yéene woon organiser gala bu mag gala de la solidarité samedi incha allah jagleel ko xale yi ak jigéen ñi mu nekk mbébét boo xam ni bu rafet la ñu bëggoon ko euh, la veille aussi euh, de la journée de la femme da ngeen xam ni sëriñ boobee mooy sëriñu Wally Seck mi nga xam ni moom la ñu waroon ànd si événement bi mbokk yi. décision bi ñu jël manax ax sama naataangoo yi tok ñinga nga ñoo bokkon ci comité d'organisation gala bi dinañu reporter événement bi reporter bi sax dafa am neneen nuñ koy bindé ndax liñu fasiyéné moy ginnaw bañu rembourser billets yi nga xam yépp yëpp nañ ko dinañu organiser après ak Si ci jamono yi di ñew ben show wala ben gala bo xam gratuitement lañ koy def pour les populations de la Médina et pour les populations de Dakar Je leen wax ni ñun ñëpp nañu dem bokk naqaru sëriñ bi fi jóge def loolu am solo c'est l'appel que je voulais lancer may gërëm ñëpp